tey boo gisee ñu ñëw fi processus bu yàgg na nag ñëw nañ fi jaay nañ ay cartes ba ñu monté fi ay secteurs au nombre de 23. tey dañu ñëwoon avec les délégués des secteurs pour mun installer le bureau de la section communale de Nguéniène yàlla def nañu ñëw fi les délégués se sont mobilisés plus de 100 délégués ils sont là dans la salle avec leur tenue et tout heureusement pour nous amul xëccoo amul xeex parce que benn tendance rek a fi bureau bi fal nañ ko vraiment avec un large consensus président bi nekk le doyen Diaité nii à ma gauche secrétaire général bi nekk Serigne Bougar Diouf mo nekk li nga xamante ne y a de l'espoir dans cette commune macha allah ñu ngi leen di ñaanal seen mission yàlla def ñu accomplir ko. seen mission c'est-à-dire faire de telle sorte que massifier le parti fexe ba parti bi am fi doole taxaw fi mun a représenter le PDS ici ba ëllëg ñu jël le pouvoir xam nga parti boo gis. c'est la conquête du pouvoir parti boo gis boo gisee ñu créé parti c'est pour prendre le pouvoir pouvoir bi nag jëluñu ko pour nguuru wala pour noos bu jël pour liggéeyal Sénégalais yi nekk bàyyi faalu Sénégalais yi am naa espoir que ni tey ngeen ñeen tey bu yàlla defee PDS jël commune bi am fi doole defe naa population bi leneen la ñuy wax parce que dinañ leen soulager parce que ñii ñu fal tey gis naa ne ay jàmbaar lañu ay liggéeykat lañu ay. waaw xam nga ñun waxuñu yéen a dégg dafay amnistie Karim Wade Khalifa Sall yéen a ko dégg dégg ngeen aussi le ministre de la justice Ismaïla Madior Fall wax ne li waroon si dossier yëpp def na ko mu ngi si table président moom la ñuy déglu de toute façon Karim Wade c'est un bi nga xamante ne fii la dëkk papaam nekkoon président loxoom set ñu jox ko terre et ciel comme ni ko gars doon waxee ba jox ko léegi cutis de bonne gouvernance pour wane ne vraiment c'est très bon ministre qui a travaillé pour le Sénégal donc a ñëw si réew mi war na mun a ñëw aussi laaj comme ñëpp bu yàlla defee mu jël nguur gi développer le Sénégal égaler les projets de son père. bon xam nga amnistie boo ko waxee ku def dara ngay amnistie Karim deful waxul gisul lan lañ koy am amnistie ngir yàlla. mais am na un moyen le code électoral am na lu ñu fi modifié pour nekk candidat nañ dindi loolu delloowaat ko rek mu nekk candidat yaa comprendre ñun xam nañu bu baax ce qui se passe. waaw samay kaddu yu njëkk mooy remercier d' abord ñi nga xam ne ñoo ma tàbb seen def ma secrétaire général bu commune Nguéniène gis ngeen li ngeen fekk ci salle bi tey dama kontaan parce que xam ngeen ne ngéeñeen euh, xam ngeen parti social suñu fi meloon ngeen euh, yëpp xam ngeen suñuy jaar-jaar ci commune ngéeñeen yàlla su suturaal mi tey ñu xam ne ak fi réew mi toll euh, benn solution la ñu gis mooy fexe andi Karim Meïssa Wade représenté ko fii ci commune ngeen ngéeñeen mais fësal liggéeyam défendre ko ci Sénégal pour incha allah mu ñëw ñu dénk ko réew mi samay objectif mooy fexe mboolem fu citoyen nekk ma dem wax ak yow parce que gis ngeen situation réew mi fu mu toll réseaux sociaux yi yàq nañu euh, léegi information bi xew ci àddina bi parce que gis ngeen li nit ñuy def am na ñoo xam ne tey boo leen woon gis jikko yu ñaaw yi nga xam ne ñu xew ci réew mi vraiment day nekk loo xam ne ñaawlu nañ ko comme ay ndaw lañ nag tollu ci jamono soxla suñu réew faw ñu dugg ci nit ñi won leen ne leen ñun yar ak teggin moo ñu yëkkati waaye développé suñu réew moo ñu teg moo ñu moo ñu yëkkati mais boo xoolee réew mi tey fu mu toll dafa laaj ñu dem ci population bi wax ak ñoom parce que ay xale yu tuuti ngay gis ñuy dépassé suñu sëriñ si te sëriñ si mooy suñu yaakaar parce que suñu jàmm réew mu ngi ci loxo ñi nga xam ne yàlla moo leen fi teg loolu faw ñu leeral nit ñi ne nag du xuloo du ŋaayoo du réewante mooy tax ñu jox la am réew waaye réew xam-xam ak qualité yu rafet mooy tax ñu jox la ko kon tey yaakaar naa ne solution bi am ci réew mi nekkul ay saaga nekkul ay xuloo nekkul ay xaste mais solution bi mooy résultat résultat nag dañ koy yaakaar ci suñu candidat bi nga xam ne vraiment ku nekk xam na ci moom yar ak teggin ak xam-xam euh, yaakaar boobu lañ am ci moom te incha allah dañ wër ci vingt cinq villages yi am ci commune Nguédiène euh, fesal ay jikkoom waaye fesal compétence am waaye fesal tamit xam-xamam ak bëgg bi mu bëgg Sénégal parce que gis ngeen ne Qatar ba mu nekk bu dee woon teraanga àddina rek mënoon na fa toog mais dafa gis ne war na servir réewam euh, xam ngeen ne doomu Ablaye Wade la Ablaye Wade xam nañ ko national international te doomam noonu la mel kon dañu am ci moom yaakaar. waaw parce que Sénégal ñoo ko soxla boo xoolee tey ci réseaux sociaux yi partout ñu ngi waxtaanee Karim Wade euh, parce que gis nañ ne seule solution moom la parce que ñi fi nekk yëpp gis jox suñu réew comme gis nañ ci moom yar ak teggin waxul waxatuma xam-xam nañ gis ci moom ak teg ak tey euh, ñu gis ne moom rek moom mooy solution tey pour mu pour mu pour si décanter xam nga réew mu réew bu tolloo fii liggéey amul ni ñi sonn nañ nga nekk benn candidat boo xam ne teggin amul ci yow boo wootee xeex ñi nga xam ne dañoo xiif. ñëpp dañu mobiliser ànd ak yow parce boo xoolee li xew Dakar benn place boo xam ne ay marques yu seer la. am ay fono yu demee noonu ay nit ànd yow eh, ñu dugg ci président pour dajji ko jël ay ñu ne ñoom seen réew la ñu ñoo ñu fal ñu ñu soxla ñu fal ñu mooy xam ne ñu la ñu fexe la pour ñu ànd ak Karim Meïssa ñu toj ay osan ñoo xam ne am li ñu am ngay dem politique ñu ñu ëllëg ñun nag vraiment soxla yooyu qualité ñu soxla mooy ñu am yar ak teggin am xam-xam bëgg seen réew